askan wi di dund te dinaa ko saafara moonte ba mu faloo dafa def ay conseil des ministres moom la jógtee wër àdduna bi yëpp wër région yëpp fu ca nekk mu diggee fa ay milliards te tey di France daal di xideen Macky Sall 2019 Macky Sall 2009 moo fi jiite woon coalition Dekkal Ngor te bi faloo dafa Casamance la fi dekkal jaar fa tas parti yu bëree bëree bari ba indi fa ak féewaloo lu ci mel ne part bi nga xam ne mooy PS ak parti bi nga xam ne mooy AFP ak parti bi nga xam ne mooy LD te doon na ko jëm ci parti réew yi waaye mënu ko ndax am na ci ñoo xam ne moom ay gor lañ te duñ masa jaay seen gor doon na ko jëm tamit ci parti PDS waaye mënu ko ndax am na ñoo xam ne ay gor lañ ndax li leen président Abdoulaye Wade defal wax dëgg yàlla duñ ko war mukk di dem di ànd ak keneen doon na ko jëm tamit doon na ko jëm tamit ci parti bi nga xam ne mooy parti parti bokk gis-gis bu Pape Diop waaye mënu ko ndax am na ñoo xam ne ay gor lañ te fëgg yóbbu leen bu ñu waxee ñu naan wàññi nañu dund gi ma ne waaw ndax fi mu fekk njëgu pétrole bi bi nga xam ne jamono Abdoulaye Wade nekk na fi yor réew mi maanaam pétrole bi mi ngi tolloon ji cent cinquante dollars te tey Macky bi mu fi nekkee mi ngi toll ci quarante dollars kon tey jii ak lu mënoon a xew tamit maanaam dund gi day wàññeeku kon du ak njàmbaaram du ak maanaam àdduna bi la pétrole bi wàcc moo tax tey jii dund gi daal di wàcc. gis ndañ pétrole Sénégal bi ni mu ko basaardee ak ay rakam ci mel ne Aliou Sall bërki dem nag dégg ngeen ministre Aly Ngouille Ndiaye dégg ngeen li mu wax ak li mu nar a def si woote yi 2019 ñun waa Touba nañu taxaw ngir li mu bëgg ñun ñu bañ ko ko may te gëm nañu ne duñ ko ko may ndax ñun ñun waa Touba Macky Sall daf ñoo defarul dara ndax 2000 2017 diggé woon na fi ab hôpital boo xam ne ba tey jii hôpital boobu taxawul ndax bu ngeen demee ay seng moo fa nekk te tey di hôpital boobu am na ay kilifa yoo xam ne séddoo nañ xaalis ba lekk nañ ko ba tey jii commencé guñ ko te dinañ tudd ay tur te ci kanam. Touba Macky Sall daf ko woon ginnaaw daa boo xoolee ci wàllu euh, ci wàllu ci wàllu maanaam infrastructure ndax tey jii nawet bii daal gis ngeen ni mu mel. ndax nawet bi bii jàll ku ci nekk xam na ne Touba dafa inondé Touba mbedd yëpp dafa yàqu kon dañu naan Macky sàll faalewul waa Touba kon Macky Sall li mu diggee woon ci waa Touba yéen ñi nekk fii kan moo ci am liggéey na tàllal loxoom yaakaar naa kenn amu ci liggéeyal kon loolu rek firnde la kon loolu moo tax tey ji Touba ak li ko wër ñoom ñëpp ñu jóg taxaw ci farataal ne Macky sàll dafa war a dem. te day dem dina dem na dem na dem na dem di wax tuuti ñi nga xam ne dañoo sàcc alalu réew mi te ñi sàcc alalu réew mi ku ci mel ne Aliou Sall ku ci mel ne Amadou Ba ku ci mel ne ku ci mel ne euh, Aliou Silla mi nga xam ne moom la Marème Faye dénk xaalisam mu yor xaalis bi waaw Ablaye Sylla mi nga xam ne moom la Marième Faye ak Macky Sall dénk xaalis bi ñu yor xaalis réew mi di ko paas di wax ne nag kii ndawi sàcc moom xam ngeen ko moom Sall la sant te moo nekk ca biir palais ba nekk soxna si borom réew mi kon kooku fu mu jàpp fu mu wàccee ci biir réew mi den ko jàpp tëj ndax bu ñu naan sàcc mooy ndawi sàcc yi ndax fondation boo xam ne day financer ay milliards di joxe ay milliards di joxe ay oto te financement boo xam ne day maanaam képp ku bëgg marché ak koo mën a doon da nga fa jaar versé te ñoom ñoo ñoo ñëw ne dañuy xeex ger ñoo ñëw ne dañuy xeex tamit alal du léwul kon ñoom li ñu yor léwul fañ ko def tamit léwul ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen wax ne ñu ngi leen jox ndaje jégatul dara nag incha allah rabbi di ngeen ñu dégg di ngeen dégg nouvelle alliance pour départ de Macky incha allah rabbi vive la liberté vive la liberté